alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV feetu bi téléspectateur euh, Kossy TV mbokk yi internet yi mbokk àdduna ñu ngi yu di baax a baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw Kossy bi ak équipe bi mu àndat yëpp rek euh, wàcc si fii nga xamante ne moo nekk si diwaanu Taïba seen tey ba ñu nag tey nekk sele ba yoon jullit yi kenn ku si nekk ñëw ngir sàkku si ñaan kenn ku si nekk ñëw ngir feddliwaat sa kóllëre ak nga xamante ne moo nekk aji waxtu jamono képp kuy taalibe Baay Mawlana Cheikhul Islam Hadji Ibrahima Niass yal na yàlla fayal ñu ko di jaaraleel nuyoo bi si buntam xaadimul umma Cheikh Mahamadul Mahi al Khalifa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér di ko ndokkeel si yoonu Mali bi nga xamante ne si la jógee ko ndax liggéey bu rëy ba nga xamante ne fa la ko def waaye tamit di jaale umma islamique di jaale Sénégal waaye di jaale képp ku taalibe Baay si naqar ak métit bi nga xamante ne nii moom la taalibe Baay nekkee ndax ki nga xamante ne nii mooy eh, Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima ñees ku ne xam na ne bésam bi si rajo bi la nekk waaye nag suñ réew yi nga xamante ne nii ñoo ñu wér eh, kenn ku si nekk rek da ngay am yéene ñëw eh, gàmmu see fi nga xamante ne nii moo nekk gàmmu Medina Baye loolu nag tax tey ñu am ndok lu métti si yoon bi yenn eh, si def ko tu fii ah, am ay bakkan doomu aadama yu bëri yuñ si buum yoo xamante ne nii métti na képp kuy taalibe bàyyi métti métti boobu na nag ñu ngi koy joxat ki nga xamante ne nii moo taxoon ñu def déplacement ñëw ngir siyaare si mi ngi Mawlana Cheikh Ibrahim gën a matale lépp waaye ñu ngi wax état bi nga xamante ne nii mooy suñu état wu réew mooy suñu président président Macky Sall jëf ji nga xamante ne nii taalibe Baay ñu ngi koy dund métti na ñaaw na ñaaw goo xamante ne nii adduna yëpp waroon nañoo taxaw tey jii nii presse bi yëpp bind si ñëpp wax si waaye gis nañ ne boobu ba léegi lenn si ay presse rek ñoo si jël seen volontaire bopp mooy ajuwu si kër gi def si seen kàddu kon dëgg-dëgg message bi nga xamante ne nii en tant que citoyen waaye en tant que taskatu xibaar mën nañ koo wax fii nga xamante ne fa lañ nekk tey mu nekk ci buntu kër Mawlana Cheikh Ibrahim kon bés bu mel nii su amee naqar bu mel nii taalibe bàyyi dund ko kenn ku nekk bokk nattee sa bopp rek da nga xamante ne nii lii euh, taxawut fenn si yoo xamante ne nii lu tooñ waaye lu li nga xamante ne nii moo nekk yëkkati xolu taalibe bàyyi moom moo leen si jublu waaye nag dafa woon naa ne état waroon na am taxawaay bu rëy boo xamante ne nii moom la siy taxaw ndax boobu ba léegi am na Euh, bakkan doomu aadama dafa for for goo xamante ne nii rawatina ay étranger yoo xamante ne ñu ngi jëlee ko si réew ñëw si sa réew fekke si la ñu boom leen mu nekk lu métti loolu benn passage boobu gàtt rek bu ñu si doon def la di jaalee seen i mbokk di jaalee xalifa bi di jaale porte parole di jaale imam waaye di jaale borom Kossy bi di suñu sëriñ suñu lépp di suñu yaay say xayaa nee na caam yi nga xamante ne nii moo ñu si kàddu gu baax di ko wax waaye tamit moo ñu yar si liggéey moo doonaa Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass kon dañ doon laal taay jotaay bi nga xamante ne nii moom lañ fa yéenee def benn reportage bu am solo boo xamante ne nii lañ bëgg a def si biir dëkk bi ngeen xa gis ne ñu ngi si dernière glace yi ngeen gis tey entretien bi nga xamante ne nii ñu ngi si baas yi gis ngeen baas bu mucc ay bi nga xamante ne moom la ñu am tey ngir def ko fii si Medina Baye teertoo ko ganu Mawlana Cheikh Ibrahim yi incha allahu rabbi sama caméraman bi vie xam naa dañuy daal di rek dugg si biir fi nga xamante ne nii fa la ñuy waxee ne moo nekk tey euh, fa la Mawlana Cheikh Ibrahim àdduna ñu xool nan la ko taalibe bàyyi di dundee waaye tamit nan lañ fay dikkee pour jox orma kër gi ñu ànd ak yéen ci liggéey bi incha allah. Sidi Baraham ma ne gannaaw dund gi dee ca topp baleen kan ci dem soldaar mu jëm foo ñu rappel. Sidi Baraham ma ne garab ak dee moo da ñàkk a dee gi duñ ko galan loo gis ba bëggeen ba ñëw na. sidi barahama wakki ndundu dee koy widdi balaren quartier dem bu galdi kosse galdi départ sidi barahama ne guddeeg bëccëg fajara koy hatte moom laam duun moom bu jant fenki lindëm biimin sidi barahama fi la ngeen gis nii tey moo nekk néeg Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass moo tax euh, soppe yi taalibe yi xarit yi ñëpp rek dañ si euh, ñëw ngir euh, soxla indi seen soxla indi seen i bëgg-bëgg indi seen lépp kon dinañ jël lenn si taalibe yi nga xamante ne nii jóge ko nañ ci gox yu fasantikoo ngir ñu andi ñu seen lenn si seen i gis-gis waaye lenn si bëgg-bëgg bi nga xamante ne nii am nañ ko gannaaw bu ñu ñëwee ngir am yéene ak bëgg-bëgg pour siyaare si Mawlana Cheikh Ibrahim sëñ bi maa ngi lay nuyu. oui ñu ngi leen ziar bu baax a baax. foo dëkk ak euh, lu waral teewaay bi fii. oui man maa ngi dëkk fa Fuuta fu ñuy wax seetu seb maa ngi bàyyeekoo Dakar. tey bi nga agsee si nag Mawlana Cheikh Ibrahim sukku ñaan am nga contentement bu baax. vraiment am nañ contentement bu baax a baax a baax di sant yàlla bu baax a baax yàlla bi mu ñu defee ay taalib Baay vraiment am nañ ci fierté bu baax a baax a baax. sëñ bi tur bi. Euh, tur bi Ousmane Galane la. Ousmane Galan waaw may ngi jugee dëkk bi ñuy wax Seeru Sebbe waaw. waaw xanaa sant yàlla rek am mbégte bu baax baax ci ñew ci dëkk bi nga xamne ne dëkkam gënal la baye mo wax képp ñëw ci dëkk bi rek manam soxla boo fi ñaan rek Yalla fajj lool mo tax ñu dëgg ay kilomètre ñew fi wa alhamdullilah ñi nga am cawarte bu baax sant Yalla bu baax ci ñew bu ñew fi wa di ñaanal jullit ñepp yalla fajj yàlla ci barke mo Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu merci. waaw euh, vieux maa ngi taxaw ak euh, ba tey sama papa si génnee si euh, néeg Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass Baye papa gannaaw biñ la nuyoo yaa ngi si Kossy TV ban kaddu rek tey moom nga am tey si mbégte rawatina juddug Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass Baye. waaw dañuy waaw dañuy daa waaw am mbégte bu baax baax a baax rek. dañ ñaan yàlla ñu gën a fekk nañ ko dañ fekk rek di leen ak jàmm yaa rabbi yàlla may si ak wet nangu suñu ñaan nangu suñu jaamu da xam ne Cheikh Islam El Hadj Abdoulaye Niass Baye kenn mënu koo fay ndax def na loo xamante ni si diine ji macha allah wër na àddina bi yëpp àddina bi yëpp wër na ko kon di mënu li may sant ko gërëm ko di ñaan yàlla yokk leeram yàlla tax si barkeem loolu la am lu ñu suñu wax da maa ngi ko ba Medina Baye ngees ñëw siyaare si fii Omar Seck la waaw. jërëjëf. Euh, suñu papa Omar sek de ngeen kaddu yi nga xamantene ni mom la euh waye sama papa bala nga dugg rek ma jël la sama papa sama xarit. vieux kon ba nyu ñu wëyal liggéey bi rek ñu ngi fi si buntu kër Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima bay euh buntu neegam bi gis ngeen tay mo nekk célébrer yoonu julit yi kenn ku ci nekk rek yaangi ngi di dem ak ñew Euh, di am mbégte bu baax a baax si taxawaay bi nga xamante ne ni moom la Kossy TV am waaye nag euh, soppe yi nga xamante ne encore tamit ñu ngi ñëw ànd ak ñoom papa ñu gis la nga fa yéene dugg si biir ngir siyaare Mawlana Cheikh Ibrahim euh, ñu nuyoo rek présenté asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax di leen nuyu di nuyu waa Kossy TV di bég bu baax ci daje biñ daje fii tey nga xam ne ñu ngi ziar si Maulana Cheikh Al Islam Al ibrahim Ibrahima bi nga xamne ne vraiment ñun ñep nangul nañ ko euh, lolu mo ñu indi fi ziar bi nak ñun mu reey ci ñun ndax euh, dañu fekk suñu wajur suñu mamati mam nek ci ñun ñu sante yalla ci lolu nga xamne ne euh, ñun ñi bitim rew lañ joge ñi ngi joge ba Espagne waye nak ties lañ dëkk suma baay di mu xadam bu mag bu nek ties ñi ko xalaaj moomu ndaw nga xamne ne ci li la mas yëngu ñun bi ñu ñëw tay bay gono ndaw lañ waaye mosuñ koo rëcc ndax laaj Ibrahima moom këpp ku nekk ci yoonam vraiment yokkute rek nga ciy gis ñu ngi koy gis bitim réew ñi ngi koy gis fii ñi ngi koy gis fu ne bon ñuy sant yàlla bu baax a baax ndax ñun liñ ci liñ ñu nampatal rek ci lu ñun loolu lañ fekk te bàyyi dafa seedeel suma waajuru góor ay seede yoo xam ne ñun dañ ca teg suñu bët ay jamono uh, bi suma Baye di nekk service bi dafa am bés mu dem ci benn chef am ne ko dañun ko dañoo am ziara ziara chef am bi ne ko ah ziara yooyu bi mu wax ko ko ndax suma bàyyi dafa tontu chef ba ne ko ah man de dinaa dem te doon sa coobare ba mu wooyee bàyyi na ko ah bàyyi man de dama bëgg ñëw suñu ziar bi waaye suñu chef bi dafa ne ziar yi fi caaxaan la waaye nag tontu naa ko bàyyi ne loo ko wax mu ne dama ne ko dinaa ñëw te doon sa coobare sama bàyyi ne na bàyyi ne ko mbaa wax nga ko ba mu dugg ci noppam mu ne waaw wax naa ko ba mu dugg ci noppam waaye la cay topp de gudd na waaye bàyyi wane na fa ay karaama wane fa ay mbir déplacé wu nekkoon sëriñ boo xam ne ay ay ay taalibeem dañ koy jaral jóg mu nek nit ko xamne vraiment ñun nangul nañ ko ak wàllu ak wilayatom nangul ko leppam ñu nek ci ñun ñu contane bu baax ci tayba gi nga xamne ñi ngi fi ñew yag nañ fa ñew te dañu konne di fi ñew inshallah allah rab ndax lii lañ xam yéen seen liggey bi yalla na yalla barkel ndax ngeen di tax ngeen jog fi ñu taxaw ni ma dem ñi ma andon wax na leen ko ne leen baye neena bo duggé ki may indi ma ko sa dank boko ko tayba ñaanal yalla lepp lo ñaan yalla na ko def ndax wàllu yalla fii la bàyyi nekkoon fii la bàyyi maam Alaaji nekkoon ñoom ñëpp ñooñu duñ ay nit duñ ay nit yu ordinaire duñ ay nit yu caaxaan waaw ñun moom jàppee leen ay nit caaxaan mhm. waaw li ma leen di teew waaw ma waaw waaye xam nga nit moom yéene ji sax moo ëpp doole jëf ci boo ko dee xool ndax dégg naa ci benn nett li ndax chance bi ñu am mooy ñun suñu sëriñ duñ ko layal bàyyi kenn du ko layal ndax ñi ngi ay kasetam ñi ngi déglu ay waxtaanam bon ñun bàyyi soxlawuñ moom soxlawul ñu koy layal wutal maanaam propagande luñ ko taalibe du ñu nekk naan ko defal na di defal noonu am na lu ma xam loo xam mi koy wax ñu koy dégg bàyyi nee na am na wàll koo xam ne dafa mos a waaj màkka ba tàggoo demut mu tàggoowaat demut ci an année ba ci topp benn ba mu tàgguwaatee beneen année ba dem ba mu demee ba ci kaaba gi dafa ne yàlla yàlla nag ma nangul sama aj yi weesu te yooyu teewul woon ba ñu nekk bitim réew te bëgg a ñëw te seen xol ñëw mu ngi mel ni ñëw nañ waaye nañ nekk ci taalibe xam ne El Hadj Ibrahima képp ku nekk ci yoonam muy nga nekk fii nga nekk bi réew ak foo mënti ne boo nekkee ci yoonam xamal ne yow doo ko rëccu ndax nee na yow mal xiyaam du ma nangu benn waliyu ay taalibeem di njëkk samay di njëkk dugg samay taalibe aljanna te loolu ci zaahir la ko waxee waaye baatin ba moo raw loolu ci zaahir la ko waxee waaye baatin ba moo raw waaye li fi li li liñ naan li li li duuf yëpp xajul ci cin lii yàlla ñu jàppale ba ñu gisantuwaat ci ay at yu bari ñaanal waa bitim réew ñaanal ñëpp adduna bi yëpp Sénégal yàlla def fi jàmm képp koo xam ne yaa ngi bëgg indi musiba ci Sénégal yàlla na yàlla dox ci suñu diggante loolu ndax ñun liñ bëgg mooy jàmm bay ñëw tay ba gi ak di dem Kossy ak dem Medina ñun Medina mooy suñu Sénégal. gàmmu ren gi ñu am si ab euh, tiis ak naqar bu rëy rëy mm-hmm. ndaxte tey euh, bis boobu jogee ko woon. biti si si réew Europe yi Nigeria war a ñëw si juddu a Cheikh Ibrahim jëfkatu euh, ñaawteef yi ñëw boobu leen loolu moo waroon nekk taxawaayu état si taxawaay bu métti boo xamante ne ni mhm. waxtu ñu toll nii journaux yi waroon nañ di ko bind mhm. def si ay plateau def si ay débat mhm. mais tey ban message nga am tey pour joxe ko ñun message bi ñu am rek mooy ñun tàmm nañ loolu ci état ndax ñun suñ sëriñ moom it presque mën naa wax ne loolu la nekkee woon état ndax ñun du état sax moo ñu tax a jóg waaye dafa am loo xam ne relation ay ay la diggante état ak état a ndax accident bi fi mu jeewa am ñëpp a ci wax bon état bu Sénégal bu ay nit di jógee bitim réew jël bus di ñëw pour gàmmu si ñu boom leen ci yoon bi bala ko kenn wax ñoom ñoo ci waroon njëkk a wax waaye nag li ñu leen di ñaanal mooy yàlla nañ jot seen càkkutéef liñ doon wut te dinañ ko jot waaw yàlla na yàlla dimbale leen ba nga xam ne yàlla dina leen teer ci aljanna bàyyi ña teeru leen fa ci barke yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Ahmad Tidiane barke Mama Laaji non te xam naa ne loolu dina am waaw waaw képp ku ñu boom sax xam nga moom li li ci yàlla wax surtout nag nga doon ñëw fii bon nag euh, état bu Sénégal li ñu leen di ñaan rek mooy ñu def ci ay même bu dul dara sax ñu wax ci rek ba nit ñi xam ne wax nañ ci. waaw ba nga xam ne ah, incha allah lépp Medina dinañ kontaan Sénégal kontaan mais euh, yàlla moom noppi na nit fi mu war a génne àdduna moom fa lay génne àdduna mu amaana même bu ñu leen boobu noonu dañuy accidenté ñoom ñëpp de bon ñun nangu nañ loolu. yoon yàlla yàlla def jàmm. kàddu gi mujj mooy di leen gërëm di leen sant yéen waa Kossy TV di leen ñaanal yàlla seen télé bi dem ba doon ay télé yu bare bare bare bare ci barke Baye ndax seen te bu te ñu nit buñ bu mu doon suñ kàddu gi mugg ñuy ñëw di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ba ñuy màgget ci barke Baye waaw ndax ñun ah, papa ah, papa wax na lépp gudd fan guddu fan gu ànd ak rek la koy ñaanal lool daal la ko mëna ñaanal léegi lepp matna na ñaan ñaan yalla njabot gi yep yalla mën mës leen xëcc indi leen ba fi te ñaan yalla ñu am barké ba jariñ ñu ba buñ démé ba ba ñëw ñom ñu ñuy xëcc di indi di ñu yeb ci auto di indi ba fi babakar Ndaw la tuddu kon mbokk internet yi mbokk téléspectateur yi suñu papa babakar Ndaw dañ koy ñaanal moom timit yalla may ko ay téméré téméré at sax di bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim waaye timit ko ndax te buntu bi ñu taxaw ni moy buntu way bi moy buntu way bi kon ñu ngi leen di ñaanal comme da ngeen dugg ci wax deug yalla jël na koy génn jël na koy dugg waaye nak yéen ñi dugg nak ñu ngi leen ñaan yalla ah, bëgg-bëgg yi talibé Baay yi am yëpp janook seen ah, image yu am solo yi ni yalla suñu borom defal ñu ko mañu ci xewal yu yaatu content nañ bu baax baax inshallah allah jërëjëf papa sha allah vie kon ñu continuer war rek dem fi nga xamantene ni ah, mo nek ci biir bi nga ñu leen image yi nga xamante ne nii noonu la taalibe yi ñëwee ngir fonk Mawlana Cheikh Ibrahim ak bëgg guñ ko bëgg nan la ñuy siyaaree si biir néeg bi. gis ngeen euh, euh, ni ñu indilee am solo yooyu si biir euh, néeg bi Kossy TV dafa ñëw ngir indil leen dund bi nga xamante ne nii Mawlana Cheikh Ibrahim dund na ko fii si Taïba seen waaye lenn si jëfandikookaay yi nga xamante ne nii bàyyi na ko fi gis ngeen. indi lañ leen seetu bi te moo doon Cheikh Ibrahim lii la xamal ne ak matam moom buy seetu dafay bàyyiwaat seetu si gannaaw ngir kaala gi nga xamante ne nii doonoon na ko si sanga bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, amul lenn nu muy génnee ñu ne nii la mel. kon dëgg-dëgg nekk na mbégte goo xamante ne nii arsifu bàññees soo ko bëggee kaay fii si Taïba Niassène lal bi ñu sukku tey di ko ziyaara lal boobu noonu lalu bàññees la waaye porte-monnaie bii ngeen jàkkaarloot. nekk na si porte montu bàññe si waaye eh, gis ngeen eh, cadre bii ngeen jàkkaarloon tamit nekk na si image yi nga xamante ne ni eh, Mawlana Cheikh Ibrahim moo ko fi bàyyi woon kon dëgg-dëgg soriwut maanaam da ngay làmb rek daj kon kooku moom mooy Mawlana Ibrahim dañuy jéem a egg si fi nga xamante ne rek moo nekk fee nga xam ne fa la àdduna ñu koy ziyaare tey ñu moderniser ko defar ko ndax dem na ba batiment bi war a daanu ndaxte dem jaami yàlla yi seen xër ak seen mbëggeel guy gi fi nekkoon dem nañ ba jël ko ba mu jeex tàkk waaye bi nag jël nañ li nga xamante ne tey moo nekk euh, suuf si di ko gas ba bu nit duggee sax doo ko gisati loolu mooy sababu xalifa bi comme dafa méngoo ak jamono bi mu ñëwee rek ñu ne nañ ko defaraat euh, karo ko ba nga xamante ne nii méngoon ak jamono ku ñëw rek ñëw jox sa asakaay poos nga ziyaare ñaan sa soxla ndax barab bii tey euh, mooy barab ba nga xamante ne nii fa la ngeen gi mbindeef euh, tëdd mooy yonent bi sallallahu alayhi nañ ko ko euh, ormale defar ko ba mu méngoog jamono adduna bi yëpp jublu ko di ko ziyaare barab bii tamit noonu lañ ko def defar ko ba mu baax ba méngoog jamono gis ngeen image yi nga xamante ne nii moom lañ leen di wan yàlla yi taalibe yi ñoom ñëpp rek tey ñu ngi fii nii kon dañuy jël tuuti rek réaction taalibe yi si dund fii nii si siyaare kër Mawlana Cheikhul Islam Hadj Ibrahima Niass Baye. mbokku internautes yi mbokku téléspectateur euh, Kossy TV euh, tey ñu fekk suñu mbokk awsa yi fii la nga xamante ne nii fii la Mawlana Cheikhul Islam Hadj Ibrahima Niass Baye juddoo euh, ñu doon ko ziyaare di jàng ay bayti ma jël kenn si ñoom rek maanaam mu andil ñu ban gis-gis ak ban mbégte tey moom nga am gannaaw boo toogee fii si Mawlana Cheikh Ibrahima. alhamdulillah alhamdulillah muna muna da farin cikin saduwa da wannan wata mai alfama wata rajab watan da aka haifi maulan mu murabbin mu shehu ibrahim ya sadiyallahu ta'ala nu muna farin ciki allah kara mana girma da karama da kuma addu'o'i alfarma mazala sallallahu alaihi wasallam allo allo allo mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi ñu ngi fii si euh, buntu barab bi nga xamante ne nii euh, fii la Mawlana Cheikhul Islam Aj Ibrahima Niass Baye ganee àdduna ñu ngi ñaanal euh, njabootam yàlla nañ fi yàgg lool te ànd ak wér waaye di si jiital xaadimul umma Cheikh Mouhamadul Mahi al Euh, waaye nag ñu fekk fi lenn si euh, taalibe yi nga xamante ne génneen nañ fi euh, tàllal seen loxo ki nga xamante ne mu nekk Mawlana Cheikh Ibrahim sëñ bi maa ngi lay nuyu ñu bëggoon a xam tur bi ak foo jógee. waaleykum salaam wa rahmatulah man maa ngi tudd Cheikh Mouhamadou Lamine Ka bàyyi ko dakaar nekk Kër Ndey Fall. sëñ bi nan nga dundee ganek àdduna Mawlana Cheikh Ibrahim fii si Taïba Niassène weeru rajab lan la fàttali. waaw alhamdulilah rabil alamin ñu ngi kontaan bu baax di ziyaara ñëpp di wax alhamdulilahi hamdan yuwaafi ni'ama wa yukaafi masida di dégg lool euh, mën nañu wax ne des bi mooy des bi gën a màgg si des yi nga xam ne ñun moom la ñu war a mën a feete ndax euh, yaakaar naa yàlla feeñu feeñu nañu feeñuwaay bu ne waaye waay bi mu feeñoo si Maolana Cheikh amul benn feeñuwaay bu ko gën a rëy euh, di kontaan bu baax a baax amul benn feeñuwaay bu ko gën a rëy ndax euh, loolu ñi xam yëpp xam xam nañ loolu di ñaan yàlla rek yàlla boo ñu si ñaan gi bàyyi di wax ne xir lii saaban fu dalan wa xir lii nen kulu sayin xayruhu wa kun dëgg-dëgg des bu rëy waaye tamit bërëb bu rëy la kon nag ñi ngi ñaan yàlla yàlla éggee ñi si màggaay googu nga xam ne yàlla màggal na ko bërëb bi waaye màggaay googu nga xam ne yàlla màggal na ko bés bi macha allah di ñaan yàlla nangul ñu yëngatu yi ak dal yëpp barke yonent sallallahu wa salaam. mujj gi rek la ngay ñaanal maanaam ñi nekk si biir réew mi ak si biti waaw yàlla na yàlla def jàmm si réew mi def jàmm tamit si bitim réew rawatina Sénégal gii ñu nekk nga xam ne léegi euh, doy na waar lool. waaye ñu ngi ñaan yàlla si barke baay baay mii nga xam ne mooy barke àddina mooy barke alaxira dëgg-dëgg ñu ngi ñaan si barke baay boobu yàlla na yàlla def jàmm si Sénégal barke yonent sallallahu alayhi wa sallam taalibe baay yi jógee ko Nigeria ñëw di gàmmu si ñu am ñenn ñuy si boom métit ak naqar boobu noonu na ngeen ko dundee bi loolu métti na lool métti na lool métti na ba dëgg-dëgg di si wax sax euh, dafay xaw di si xol yi waaye tamit dafay xaw a diis si làmmiñ yi di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla sottandal yàlla na yàlla sotti Sénégal ba nga ba nel comme ni ko Baye bëggee su fekkee Sénégal àgg na fi fi Baye bëggoon dëgg-dëgg jàmm rek mooy saawaan waaye jàmm rek mooy baawaan yàlla na yàlla defal nii loolu te fekk delluwul rek si Baye yaakaar naa ne dëgg-dëgg duñu am duñu am jàmm Sénégal réeré gi ñu réeré Baye nag rek moo waral xat-xat yi moo waral lépp loo xam ne rek ay tawat la. alhamdulilah jërëjëf mu ngi noonu mu ne Sénégal réeree bu ñu réeree Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass loolu moo waral xat-xat yi loolu moo waral jafe-jafe yi kon yal na yàlla dimbal lañu suñu xol yi ak suñu bëgg-bëgg yi mu jeex si Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass nii lañ koy defee si biir dëkk bi dinañ ko defee si biir kër gi ngeen dund ko en direct si eh, Kossy TV yéen ñi nga xamante ne nii yéen a nekkee foofu noonu si diwaanu bitim réew ngeen xam ne waxtu wi toll nii benn bëgg-bëgg rek moo am mooy eh, màggal juddub eh, suñu sang bi suñu sëriñ bi Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima yal na yàlla may ko fan bu gudd bu ànd yal na yàlla yokk leeram tax si barkeem waaye na yàlla taxawu njabootam gi si saayir taxawu njabootam gi si baateen waaye dinayu nag suma mbokk yi nekk si biti réew suma ziare sama soppe suñu xarit eh, Cheikh Thierno Abdourahmane Bari ay eh, fa lañ jógee ko fële si Casamance yal na yàlla may ko fan bu gudd ak njabootam si Abdourahmane Thiam nekk ah, eh, leen di nuyu di leen ziare si Suède Danemark foofu yëpp xam ne njabootam maa ngi fa ñu leen di nuyu di leen ziara ndaxte tey ay soppay Kossy TV lañ bëgguñ ñu man Kossy TV waxtu wu nekk ñu ngi xool li muy liggéey ak li muy def kon ñu ànd ak yéen si taxawaay bi nga xamante ne rek moom la Kossy TV di def tey spécial reportage bu am doole ngir jagleel ko taalibe yi nekk si biti réew wala waajal ñëw fii nii si teeb ñu seen ngir mën a xam lu xew waaye xoolal moo naa Seexul Islaam Aji Ibrahima si biir kër gi ngay taxaw janoog jumaa ji nekk si biir euh, kër gi loolu yëpp moo ne rek ne nga nekk Medina Baay nga nekk fii si teeb seen kon ñu ngi joxante gi rendez-vous si kam tuuti incha allah jërë ngeen TV ñu tamit ñu ngi si liggéey bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla si taxawaay bi nga xamante ne ni ñoom it euh, am na solo lool ndaxte démb ba tey ñu ngi si liggéey bi wax fan yëpp ñu ngi si liggéey bi kon képp ki fàttalil euh, juddug Mawlana Cheikhul Islam Hadj Ibrahima Niass Baye euh, rek yow dañ lay boole si liggéey bi kon Top Info wax suñu toll nii. toll na foo xamante ne nii si internet bi toll na foo xamante ne nii si jaamu yàlla yi ñëpp rek ñu ngi koy bàyyi xel kon waxtu wi toll nii tembe rek ñu nekk fii ci kër Mawlana Cheikh Ibrahim ñun tamit ñu ngi ci liggéey bi yal na yàlla may leen fan bu gudd bu ànd ak waaye yaakaar gi nga xamante ne nii am ngeen ko ba sëmbu liggéeyu Mawlana Cheikh Ibrahim yal na yàlla dégg leen si chaîne yi gën a kawe waaye si euh, média yi nga xamante ne nii ëpp na doole si ñuy liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim kon yéen ñëpp li ñu di jox benn kàddu benn appel rek mooy ngeen dem di abonné si pace bi di partager waaye nag di jël lien yi di ko dugal si group yi ndax ñoom ñëpp rek benn xidma la ñu am benn liggéey lañ am muy liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi leen di jéggalu bu baax incha allah rabbi si kanam tuuti danañ ànd ak yéen si leen yaatal Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi si di barxama leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV